xarit bi ñu seetaan euh, suñu mbokk internet yi nekk euh, di jaajëfal bu baax tey nag euh, ñu ngi fii ci Kaolack lew na quartier. Dibiteri Baba Baba. Dibiteri ñu fekk ci suñu mbokk Jakar Jakarta maan yi maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy dawal moto Jakarta. Hmm. Kaolack boo ko déggee nekk na benn dëkk boo xamante ne Carrefour la mu ngi ci digg xolu Sénégal. Hmm. mu nekk benn dëkk boo xamante ne daanaka Jakarta moo fi ëpp. on peut dire que c' est l' emploi des jeunes sax mën nañ ne ci Jakarta la nekk. waaw euh, ñu ñëw fekk fi suñu ñaari gars yu baax yi. Euh, jël ñu ngi jëli ziare bu baax a baax a baax. ñu ngi jëloon ziare bu baax a baax yi. voilà tey nag dañoo ñëwoon fii pour bëggoon euh, ñu waxtaan mm-hmm. fii fii garage la wala. garage la waaw. ah garage la. waaw arrêt Jakarta. arrêt Jakarta. mais arrêt bi ñaata Jakarta ñoo fi. waaw bëri na nag. bëri na ñaata jeunes ñoo fi xëy. waaw presque man boo ko ma daal war na ma juróom-ñett juróom-ñaar juróom-ñett. kon maanaam daal on peut dire environ dix. personnes jeunes ñooy xëy fii ci garage bi waaw ndax am ngeen euh, ku leen jiite. waaw am nañ jiit quoi. Hmm, am ngeen jiit mais jaxataay moom alors ndax yéen a ciy gis seen bopp. pas tellement nag. Hmm. ñu ngi ciy gis baaw bopp nag mais pas tellement. Hmm. parce que léegoo léegi journée bu neex léegoo léegi journée bu nag bu neex. mais nag ñu si sant yàlla parce que ñu ngi si suturloo waaw mais nag comme daal ñun bu ñu amoon koo xamante ni daf ñuy financé ñun ñu amul jakarta moo ñuy gënal parce que am na ñoo xamante ni mën naa wax ne comme man wala comme sama rakk ji amoon amagum si yëfu bopp boo xam ne mën nañu si suturloo mais nag bu ñu amoon ko loo xamante ni maanaam dinañu mun di financé ñu ñu am yëfu bopp moo ñu doon gënal parce que ay borom kër ren ay borom kër ñoo fi nekk du ñëpp moom sañu moto bopp du ñëpp ñoom moom sañu yëpp bopp yi mm-hmm. mais buñ sañoon tamit buñ amoon koo xam ne moo ñuy financé mm-hmm. moo ñuy gënal mm-hmm. waaw waaw waxtaan bi sax ci loolu laa dana bëgg ñu gën cee xool ci wàllu financement boobu da nga maanaam su ma juumul ci say kàddu mm. ay booy ñoom ñooy taxali ko seen bopp wala nit moo koy jënd jox leen ko pour mu leen ñu leen di liggéeyal wala waaw am na ñoo xamante ni nag ñoom ñoo ko moomal seen bopp uh-huh. waaw am na si ñoo xamante nag dañ la ñuy financé mu nekk genre vélo lepp ngay jënd du maanaam mu jox la mu moom ko jënd ko dina ko jox ngay daw du verser ba keroog ngay moom sa yëpp. versement bi par jour na ñaata la. fu mu nii bu dul vélo leb chaque jour juróomi téeméer la. ah ok chaque jour deux mille waaw mais bu dee vélo leb la nii chaque jour trois mille ngay jox ngay daw du jox boromam ba keroog yàlla di def xéewal. ok ok ok je comprends. waaw léegi nag bu nag yow yow mu joxoon vélo bi. comme man mi nga yow mu jënd vélo bi joxoon ma ko maanaam nga jox ma ko pour ma daw du verser. Hmm. heure bu vélo bu man man maa moom vélo bi. Ah, maanaam dafay jël euh, moto bi jox la ko. waaw ne liggéey di verser. waaw 3000 francs demee ba njëgu moto bi mag waaw mu daal di lay bàyyi ak moto bi jël xaalisam. waaw daf may waaw daf may jox waaw daf may jox délai. waaw maanaam dans 6 mois bu dee vélo leb la. six mois la bu dee leb waaw six mois boobu nag feeg matul yow man moomaguma sama vélo mais su six bu matee nag man maa moom sama vélo bopp. ci biir yi chaque jour trois mille la. chaque lu paan man maay defar. moto bi moto bi ñaata lay trois cent quatre vingt am na ñu jaay quatre cent mooy laas. waaw. mais nag ba tey tamit ñun bu ñu amoon bu ñu tamit ku ñuy financé daal man mm-hmm. ñun moo ñuy gën a mm-hmm. waaw parce que dina am borom kër yoo xamante ni si leen seen seen sutur la nekk mm-hmm. bañ dañu daw sàcc bañ di def naka su dul noonu moo tax nag ñun bu heure bu ñu xëyee nag ñu ngi suturloo si mucc vélo yi dina am nag am na si yenn boy yoo xamante ni tamit ñoom dañoo xaw a doy waar waaw teewuñ seen bopp teewuñ seen loxo daal mais borom sax laa ndax yéen dawalkatu moto Jakarta eh, amoo leen quelque difficulté par rapport ak ni ngeen di dawalee ci tali par rapport ak contrôle contrôle police par rapport ak leneen ak leneen. waaw boo daggee sa abonnement abonnement boo ko daggee mën nga dugg fu ne si biir dëkk bi mais bu nekk abon maanaam dagloo abonnement da ngay faral du moytu police yi. exact yaa ngi dégg mais ñu su bëri ñu bañ ñu bañ wala ku bëgg soo sutur la bopp da nga dem dagg abonnement 7500 du fay weer bu dee 2500 2002 ba 2500 à part le 5 2500 waaw le 5 premier yi 2000 la mais su weesoo le 5 double 6 waaw boobu moom 2500 la maanaam pour nga dawal fi mu tey il te faut des papiers c'est très normal oui pour nga mën a dagg abonnement abonnement abonnement bi ñaata weer lay def abonnement boo daggee abonnement 7500 chaque mois la chaque weer. chaque mois. nga dagg da ngay dagg abonnement 7500. non bu weer comme te boo ko boo si soog a dugg. waaw 7500 ngay soog a fay ngay fay. waaw su weesoo 7500 boobu noonu weer boobu ba mu si soog a dugg. chaque jour chaque fin de mois. 2000 ngay dagg maanaam ngay fay. ah ngay fay. waaw da ngay dem nag gars yi jox la ticket. benn yoon nga koy dagg booy soog a dugg boo ko amagut. mais boo sa xasee bu dugg ba dagg ko noonu chaque fin du mois. Mhm. deux mille ngay fay kon ñoom yombalal nañ leen ko. ko mhm. mais nag bu dee comme fii ci biir ville bi fii nii. Mhm. deux mille cinq la. waaw chaque weer. boo koy amagu tamit boo siy soog a dugg. waaw sept mille cinq cent. mais tamit bu dee tamit ba tey ñàkkloo ci biir quartier bi ci biir ville bi fii nii. waaw ko woon moo gën a xaw a yombale fii moo gën a prix fii daal. waaw mais daal ça ça veut dire que pour wàllum kayit bi moom gars yi comprendre nañ leen ba yombalal nañ leen amoo leen ci benn problème. déedéet mais boo ko amul moom foofu buñ la boo da daje ak ñoom dañ lay waaw. mais à part bu dul problème bu kayit est ce que am ngeen yéen am ngeen yeneen problème aussi. ci kaw tali bi rek. kaw tali bi rek c'est-à-dire comme na. waaw léegoo léegi tamit maanaam nga daje ak chauffeur bu soxor wala yaa quelque chose dañuy buntu xatal ñun sa jaww ko te jàkkaataay ci kaw tali bi. te buñ sañoon ñuy def transport da ngeen di xëccoo tali bi. waaw ñun transport yu Jakarta yi ak transport yu port euh, taxi yi. Mm-hmm. waaw parce que dañuy buntu xatal ñoom seen bopp. Mm-hmm. parce que dañuy boo xoolee boo xool su suñu gis-gis. Mm-hmm. dañuy buntu xatal ak client yi. léegi léegi nga dañuy xëccoonte client yi ko wala des fois ñu xatal ñu si kaw tali yi. waaw des mooy waral choc yi y a quelque chose wala bu gaañ sa kër Jakarta ba. Eh, dia fois nga gis chauffeur jakarta bu dem ba xolam mënatul muñ loolu bu ko chauffeur ba tooñee moom mu def naka tudul noonu su oto bi wala mu dem ki chauffeur bi quoi ma daal bu sañoon daal ñun ak chauffeur yeeg ñun ñëpp dañu doon benn doon bokk ndey bokk baay waaw mais chauffeur seen xol dafa daw ko di jakarta waaw mais ndax léegoo laaj ay permis pour bëgg dawal jakarta laaj na permis yooyu noonu non du si jakarta bu ci Jakarta trois roues yi ñoom la ñuy laaj permis ah trois roues yi la ñuy laaj permis waaw waaw mais yéen moom bokkoo leen ci permis déedéet ñun abonnement la ñuy faral di sonale abonnement rek mais du permis du leen loolu la ñu trois roues yi mais tamit du tous les motos ñoo ñoo lay yóbbu pour nga topp moromu belom wala moromu trois roues tay tay buñ la ne woon lan la ne ci jakarta bi ci kaw la pour mu gën a mën a lan ngay wax ñi lay seetaan tey lan lan mooy seen problème lan ngeen bëgg ñu fajal leen ko ba nga bi ci tali yoon ak waaw yoon tamit maanaam suñ dafa bokk tamit si liggéey bi parce que bu yoon bi baaxul doo sa sa moto dina gaaw yàqu. Eh, boo wàccee tamit su boobaa sa yaram dina métti. sa hmm. dugub loo am si vélo hmm. hmm. ah, iya bi nga ko def si sa kër. tamit da nga koy dem fajoo sa yaram. waaw ñun ñu si bëri dañuy tooy wala ñu xaw a tawat loolu yëpp yoon bi yàqu moo koy faral di ñu si ëpp doole. moo faral di waaw yoon yu yàqu normalu tamit waaw bëri na ay karama ñangal lool tamit. c'est-à-dire. waaw yoon yoon bu ñàkk baax rek. yoon bi baaxul daal. waaw yoon bi bu tawee est-ce que du ñu toog daal ba ba ndox mu ba ndox ba taw bu taw ba arrêté tamit yoon bi sax yoon bi daal moo si ëpp problème lu mu si wax faral di yëpp daal li may wax daal mooy yoon bi. daal yéen ngeen di gën a jooy yéen Jakarta. waaw waaw waaw yoon bi ak policiers yi tamit ñoom seen bopp. ak policiers yi comme nan. waaw affaire d'abonnement yi rek. parfois leen di ci tali bi daal. dañuy kocc dañuy buntu xatal dañuy laaj waaw weccet. ah mais ku la yombalal ma fab ki la yombalal pour nga dagg deux mille cinq cent waaw mais xam nga tey su ma jëndee vélo bu bees balaa kii bi di génn il faut peut-être quinze jours wala vingt jours. wala benn un mois pour tomber kii mat. léegi nag man su ma demee jënd vélo bees tey ma dem man il faut ma toogaat benn 15 jours ak 20 jours. pour mun a demaat si borom ku ma ko jaay. ma dem mu ñu xool ndax kayit yi génn wala génn ko mais boo ko jënd bees moom si saa si. dina am ñoo xam ne dañ la wax kayit yi même génn ko. yaa ngi dégg il toog benn 15 jours 20 jours nga delluwaat fa kayit yi mun a génn bu génnee nag nga soog di mun a dem dagg abonnement mais boo dagul abo fii ak avant nga dagg moom. il sa kayit mat. ci ban kàddu ngay mu daanale ah, waaw ñu ngi leen sant di leen gërëm. Mm-hmm. Greenview TV. maa ngi leen di ñaanal tamit bu baax si seen liggéey. Mm-hmm. di leen yokkal tamit bu baax a baax si jàmm ak salaam ak wér ak wér bu baax. yàlla musal leen si cat. yokkal leen seen jàmm. bu baax a baax baax man daal loolu moo nekkoon sama waaw samay kàddu.